ñu njëkk a gis lan nga ci commenté. Euh, bi jàll. bi euh, jàll bon mm. euh, faites vite s'il vous plaît derrière euh, voilà. Ouais, ça ça ça ça c'est ma mère. sama sama yaay y' a de commentaire à faire c'est toute ma vie. Ouais. donc maa ngi ko bàyyi kër ga ñëw. su ma génnee je vis avec elle. Mm-hmm. donc je me suis jamais séparé. ba nga fekk na mu nelaw. Mm-hmm. Mm-hmm. mag la. elle est elle est âgée voilà. mais c'est toute ma vie. moi mon père avec mon père était très caractériel consort mais man avec man c'était laisser aller. me permettait tout mais mère bi voilà <laughs> eh, di ko ah. waalo eh, waalo elle c'est toute ta vie am na itam beneen photo moo bëggoon ñu eh, commenter ko ensemble mm, ah ça c'est avec Tanor et Diouf mm. et parce qu'au moment précis photo Tanor lui disait que président est-ce que vous reconnaissez le jeune homme parce qu'en à l'élection présidentielle j'étais à l'attaché de presse de Diouf mm dans l'équipe Séguéla la communication j'étais membre directoire du Parti socialiste et j'étais l'attaché de presse donc chaque jour en fin de journée c'est moi un peu qui faisais le feedback un peu de la communication à Diouf mm -hmm. et là il me retrouve presque euh, comme peut-être euh, des années plus tard mm -hmm. Tanor lui faisait la remarque c'était à la au CICAT beneen photo bi bon ça c'est le fameux Pim Papia Mbaye avec Tanor c'est son jumeau c'est des amis sont connus en 76 jusqu'au jusqu'en 80 parce que qu'est-ce qu'il devient Pim il est là il, Pim il est ambassadeur itinérant euh, parce que lui quand Diouf parce qu'il était l'adjoint de Bruno Diatta jusqu'en 2000 quand Diouf a, a perdu lui il n'a pas voulu servir sous le régime de j'ai resté douze ans. Hmm. et puis président Macky a été élu il a il a ramené. sa mag la mais. Euh, ñoo bokk ndaay ak baay mais c'est mon père. moom moom sama papa la. à chaque fois ngay wax ci moom. Euh, dañuy sentir émotion. boobu quand je suis quand je suis je suis ah c'est lui ah. c'est euh, voilà. voilà on regarde une autre une autre photo euh, Bruno. waaw c'était autre. grand pour moi, qui me tolérait beaucoup de choses. C'était mm-hmm. un refuge aussi. Mm-hmm. Parce que Pim était parfois très sévère. Mm-hmm. Et puis on vivait ensemble. Parce que tout le staff de Diouf, Bruno était le chef de protocole, Papiam était son adjoint. Le commandement, l'avion présidentiel, tout ça, on vivait à Bourgie à la rue Docteur Thèse. Donc nous, vivait côté droit, Bruno côté gauche. Mais quand je faisais parfois des conneries, là, film li mu wër dama daan daw laaxatu si <laughs> qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup encadré beaucoup appris voilà c'est yàlla na ko yàlla yërëm sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma itam waaw lui c'est c'est c'est l'oncle mon oncle c'est le cousin de mon père et c'est ça qui a fait parce que Gaïndé Fatma et mon père se sont associés euh, dans une société qui s'appelait ETAM entreprise des travaux agricoles mécanisés mm-hmm. di béy ceeb c'est pour ça la raison pour laquelle mon père s'est installé à mm-hmm. moo tax ma juddu foofu mm-hmm. donc Gaynde Fatma c'est le cousin à mon père c'est mon oncle et j'ai sou les souvenirs que j'ai avec lui les années 77 78 balaa koy balaa muy wàcc liggéey mais bien su muy àndoon na sama papa ñëw Touba dafa ma doon uuf et puis dafa ma doon may xaalis ah. me donnait beaucoup d'argent quand pouvez me donner cinq cent mille francs temps ay bii dix mille francs yu rouge yu gane j'ai souvenir donc de même que Yacoub Ould Cheikh Sidi qui était très proche de mon père qui était tout le temps euh, souvent chez nous à Richard Toll mm -hmm. je dormais avec lui donc c'est dans cette ambiance un peu particulière que si la si la si la si la yoroo quoi hmm. voilà ba tey bu ñu desandee biir Touba am na itam beneen photo boo xamante ni hmm. euh, di nga ci commenté waaw sëñ Fall waay sama sama maraab sama tudd d'ailleurs moom mm-hmm. laa tuddee sama taaw mm-hmm. sama doom sëñ Fall parce que j'ai toujours loolu dama ko mosoon bëgg dama koy doom et puis sëñ Baara mm-hmm. qui j'étais très proche un jour dama toogoon ko wax mu ne ma mu wax ma ci ay misaal yu doy waar donc c'est la preuve que et puis Baara daf ma ne ma woon loolu dina am te su amee euh, xale bi man maa koy tudd hmm. ba si yàgg mu ni su ma fekkee moom Alaaji Baara waaw ma ba si yàgg mu ne su ma fekkee donc mon mois avant muy juddu sëñ Baara nelaw donc moo tax taawam sëñ Moustapha Baara hmm, moo ko ñëw tudd moo ñëw tudd sama doom donc c'est le lien un peu et puis sëñ Fall Fall il avait des liens aussi très particuliers avec mon père parce hmm. que ci jamono yooyu parfois dans des trucs confidentiels su sam su sañ suñ Fall doon day yoo yónnee ci Senghor sam papa la doon yónni mhm. donc c'était c'est un peu la relation mhm. particulière mhm. fekkewuma lool quand boobu wala peut-être xàmmewuma mais euh, non boobu fekk juddooguma sax parce que sëñ Fallou bi mu wàccee liggéey ci at bi ci topp ci laa doogu judd soixante-huit la wàcce liggéey fekkewuma loolu mais ay affaire la yoo xam ne sama maam nga xam ne dund lu yàgg parce que maam ki jur sama papa dund na presque téeméer ak fukk ak benn mhm. cent onze ans donc mhm. y <laughs> loolu euh, mooy album commenté uh-huh. euh, bu euh, déclic des na beneen bi itam ban commentaire nga ci def kii sëñ Moise la kii mooy suma sëriñ mooy sëriñ sëriñ bi ma mës jébbalu kii ma maam Thierno la. waaw kii ak euh, sëñ Modou Kara. Mm-hmm. c'est des cousins germains. amal daar waaw donc euh, waajuróom bu góor. Euh, Cheikh Fatou Fall ak mm-hmm. sëñ Ousmane Mbacké. Noreyni mm-hmm. donc ñoo bokk. kii sama sëñ la donc qui m'a beaucoup marqué. soo ñu monsieur yu bare parce que damay fàttaliku en mille Euh, onze bi may jàngi France bi ñëwee di ko tàggu dafa ne ma yaa ngi dem mais su fekkee da ngay gaaw yéemu mhm. ah bul bul dem toogal parce que tugal dëkku tubaab bi soo fa demee gaaw yéemu rek mhm. da ngay da ngay beddeeku da mhm. ngay weddi sa kii et ça m'a frappé d'autant li mu ma wax dafa mel révélation parce que dama wàcc aéroport Paris xam a temps boobu Abdou Diouf yi les Mercedes six portes là. gudd ma gis même Mercedes bu mel noonu ñu def ko taxi quoi. Mm. alors ma jaaxle mu ne mais après et je me suis rappelé Mass me disait ça c'est quelqu'un boo xam ne m'a beaucoup marqué et mm. euh, pourquoi c'est marquant parce que mi ngi wàcc liggéey 2006. Mm-hmm. ci accident. accident bi noonu accidenté fekk euh, dama doxoon digganteem ak président Macky Sall boobu Macky Sall mi premier ministre. Mhm. mu jege daaru ñëw war ko rencontrer. Mhm. ci yoon bi la accidenté. Mhm. donc c' est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué ay quelqu'un à qui je dois énormément donc bu léegi très souvent may arrivé ma rëcc. dem daaru. ziar ko ziar ko waaw. dernière photo c'était mon ami. C'était mon ami. On a beaucoup énormément discuté te bon ci période bi bon temps yi bi ñuy wax ni on avait des projet parce que euh, en avril bi passé c'était les dix ans de de Ouattara. Mm -hmm. donc nekkoon ci ay projet faire un grand reportage. c'était quelqu'un de très jovial. bon mm-hmm. disposé tout le mm temps. Mm-hmm. photo c'était à. Abidjan. bi mu décédé qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a fait. ça m'a ça m'a choqué. parce que bon c'était un peu inquiétant quelques moments avant son décès donc il était moins réactif au téléphone. pas moins réactif mais pas bavard. toujours mm -hmm. quand on se parlait je disais des choses il me faisait des signes ay émotifs la ma doon envoyé je m'inquiétais, je lui posais des questions, mais bon, il me disait ça va, ça va. Après, tout d'un coup. l'affaire est venue bon voilà c'était quelque c'est aussi des clichés mm-hmm. c'est moi la am bac que j'ai bi ma xam pratiqué ko ak la am bac autre ça n'a absolument rien à voir mm-hmm. pas quelqu'un de plus humain que que ce il était c'était pas un Ivoirien c'était mm. un Africain. c'était un Africain. il était quelqu'un ouvert à mm. toutes les sensibilités. Mm. et puis décomplexé. Mm-hmm. c'est-à-dire ce gars n'a pas de diplôme et consort. mais il était plus performant que les hyper voilà mais bon quelque part man à Mm-hmm. affaire bi man non toog j'étais choqué quand j'ai je me suis bon kii cat la quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. cat la premier ministre par intérim bi muy décédé en Côte d'Ivoire donc voilà ah, et bon voilà bon <laughs> c'est des c'est des relations. mais Pape Cheikh moom ni la am ak dem si yàlla nekkoon rebelle Côte d'Ivoire ah. kon xarit bi ça ça s'explique. <laughs> voilà on va on va fermer l'album puisqu'on n'aura pas le temps de euh, xool page yëpp ak photo yi nga xamante ni euh, c'est des photos personnelles euh,